mbokki déglukat yi salaamaaleykum mu ngi leen di nuyu yéen ñépp ci turu yàlla aj yërmande ji bëgg ñépp xam yoonu mucc wi te di ko topp sunu mbégte rëy na ndax xam seen takkute ci émission yoonu njub bii di seen bos ci sunu njàng mi weesu gisoon nañu ci ñeenteelu ndigal li yàlla wax ca ne teel fàttaliku bésu nooflaay bi nu gisoon ne bésu nooflaay bi yàlla dafa ko sàkk ngir jàmmu nit ak tawféexam ci saayir ak baatin ndaxte yàlla dafa sant ay gaayam ñu ber bis boobu ngir noppalu ci seenub liggéey waaye itam yàlla dafa leen sant ñu jagleel ko boobule bés kenn umpalewul ne yaramu nit ak xelam dañu soxla nooflaay léeg-léeg lu ko mooy nit dina wopp ciw yaram mbaa cim xel loolu bokk na ci li yàlla di bañal nit waaye su nit dëgëree bopp di tërërëri rekk bañ faale yàlla ci dara li wér mooy dina ko wexaat beneen bi mooy yàlla dafa bëgg nu jagleel ko ab diir di ko ca wéetal ak a jaamu moo tax bésu nooflaay bi nekk bésu borom bi tekkiwul nag ne benn bés képp lees war a fàttaliku yàlla ndaxte kàddug yàlla sax dafa wax ne màggal leen yàlla te sawar leen ci bañ a tàyyeel di jaam borom bi ak seen xol bépp léegi nag nanu jëm kanam ci sunu gëstu ci fukki ndigal yi yàlla dénk muusa ak bànni israel ngir ñu xamle leen ci àddina si dikk nanu tey ci juróomeelu ndigal li di ndigal li jëkk ci juróom benn ndigal yu mujj yi jëm ci ni nit wara jëflanteek moroomu nitam yàlla aji sax ji dafa waxoon bànni israel ne teralal sa ndey ak sa baay ngir am gudd gi fan ca réew ma lay aje sax ji sa yàlla di jox juróomeelu ndigal lii dees ci gis ne sunuy waajur dañu am solo lool di ñu mata fonk te faaw nu jox leen cër bi ñu yelloo waaye du loolu lañuy gis ci njaboot yu bare ndaxte dangay gis doom yoo xam ne seeni waajur dañuy wax ñu tebbi seeni ndigal ciibatu leen gëdd leen gëdd dem seen yoon te duñu am benn toppatoo ci waajur yi xanaa dëkk ci tàngal seeni xol rekk waaye juróomeelu ndigal li dafa wax ci anam yu leer naan teeralal sa ndey ak sa baay cobarek yàlla nag ci doom yi mooy ñu sopp seeni waajur te déggal leen nun mag ñi bu nu déggee ndigal lii xëy na mu am ci ñun ñuy xalaat ah lii nag gune yi war nañu ko déglu de waaw dëgg la gune yi war nañ ko déglu waaye ndax mag ñi tamit amuñu ci wàll wala boog mag ñi dañu amul ndey ak baay ah kay kon nag ñépp la ndigal li soxal moo tax nag ci sunu njàngum tey mi nu fas yéene ci gis ni ndigal di amee solo ci ñépp du ci xale yi rekk waaye ci xale yeeg mag ñi wolof njaay dafa wax ne guney tey ñooy dooni magi ëllëg moo tax ci juróomeelu ndigal li yàlla sant doom yi ñuy teral ndey ak baay waajur dafa am solo ci yàlla fi mu leen teg ci fukki ndigal yi sax wone na ko bi yàlla noppee ci digganteem ak nit waajur yi la ci toftal waajur yàllaa ko tegal boppam ci palaas bu am solo bi mu nekk ba tax nu war leen fonk wormaal leen jox leen cër bi ñu yelloo moo tax mbind mi naan yéen xale yi na ngeen déggal seeni waajur ci li ngeen bokk ci borom bi ndaxte looloo rafet teralal sa ndey ak sa baay mooy ndigal li jëkk ëmb dig maanaam ngir nga am gudd fan gu ànd ak jàmm ci jamono yàlla digoon na gudd fan gunay bànni israel suñu déggalee seeni waajur waaye loolu tekkiwul ne tey ji ñi bokk ci kirist te déggal seeni waajur faaw ñu gudd fan ndaxte am na ay way gëm kirist yu déggal seeni waajur te terewul ñu gàtt fan benn misaal ci mbind mi mooy Étienne moom kenn la woon ci way gëm kirist yu jëkk ya dafa am bés muy waare ca kanamu yawut ya la mu doon wax di dëgg kenn mënula tebbi waaye dëgg googee jëmoon ci almasi bi neexul woon gaaña ba tax ñu sànni ko ay xeer ba mu faatu moona Étienne ndaw lu dégg ndigal la woon waaye bakkanam rotoon na ci ndawam waaye am na leneen lu am solo lool ci ndigal tey lii mu di xale yi dinañu barkeel suñu déggalee seeni waajur xale yi déggal seeni waajur ci lépp luy coobare borom bi dinañu gën a bég yeneen xale yi gune yu bare yu seen aw fan gàtt walla ñu torox ci àddina daanaka jaaxalul kenn ndaxte boo ko seetee ba ci biir dañu nekkoon xale yu yarawul di ay fippukat yu faalewul kenn du seeni waajur sax waxatuma meneen mag moo moona ci cosaanu Afrique ak réew mii nu nekk doom doomu ñépp la waajur yemul woon rekk ci ñi sukk jur xale bi mag mu nekk amoon na wareef ak sañ-sañu yar xale bi bijjanti ko su ko gisee ci lu jaaduwul naka noonu xale bu nekk itam amoon na wareefu mag mu mu gis jàppe ko ni waajuram mu wormaal ko jox ko cër ni su doon ay waajuram cosaan loolu woroowul ak njàngaleem kàddu yàlla gi ndaxte sunu sukkandikoo ci li mbind mi wax mënees na jàpp ne xale dafa war a wormaal mag ndegam wolof njaay dafay wax ne guney tey ñooy dooni magi ëllëg kon wér na ne su xale bi melul ni mu war a mel tey bu rëccee ba doon mag ëllëg it du nekk mag mu wormaal ay waajuram ni mu ware ndaxte garab lañu ca gàjj lay meññ loolu nag di dellu rekk di wone sas wu rëy wi waajur yi am ci yaru doom yi dale ko ca ba ñuy lu tuuti ndaxte dañu ne garab ba muy lu tuuti lees ko war a jubbanti lu ko moy dina jublu fu gënalul kenn bu boobaa boo ko bëggee jubbanti nag mu damm yaru xale dees koy teel a tàmbali bañ a topp ñiy wax naan bàyyi ko xale la xamul dara ah am na lu mu xam su xamul yàlla itam xam nab yar te li mu xamul sax yaa ko ko war a tàmbalee xamal ndànk-ndànk yonent yàlla suleymaan dafa ne kuy bañ a yar doomam bëgg ko ku bëgg doomam dafa koy jubbanti bant ak yar dafay indi xam-xam waaye gune gu ñu boyal dina teg ndeyam gàcce loolu leer na nañ ndax xale bu kenn newul ñalangi du mën a nekk kuy dégg ndigalu waajuram waxuma la meneen mag ci lu jaadu te nag ku amul kilifa jinne di sa kilifa ci loolu yeesu almasi bi mësula def bàkkaar mooy reyukaay bu mat ci ñépp nanu déglu li xewoon ci dundam bi mu amee fukki at ak ñaar linjil bu seel bi dafa wax ne at mu jot nag waajuru yéesu yi daan nañu dem yerusalem ngir màggale bésu jéggi ba noonu bi yéesu amee fukki at ak ñaar ñu dem màggal ga ni ñu ko daan defee naka jekk bi màggal ga tase ñépp dëpp ñibbi waaye xale ba yéesu des yerusalem te ay waajuram yëguñu ko ñu xalaat ne yéesu dafa àndoon ak ñeneen ñi ñu bokkaloon yoon bi ñu doxee bésub lëmm ñu tàmbali di ko seet ci seen mbokk yi ak seeni xame bi ñu ko gisul nag ñu daldi dellu yerusalem seeti ko ca gannaaw ëllëg sa ñu fekk ko ca kër yàlla ga mu toog ci jàngalekati yawut ya di déglu ak di laajte ñépp ñi dégg li mu wax yéemu ci xel mi mu àndal ak ni mu doon tontoo naka la ko waajuram ya gis ñu daldi waaru yaayam ne ko sama doom lu tax nga def nu lii man ak sa baay nu ngi la doon seet jaaxle lool mu ni leen lu tax ngeen may seet xanaa xamu leen ne dama war a nekk ci sama kër baay waaye xamuñu li kàddoom yooyu doon tekki noonu yeesu daldi ànd ak ñoom dellu nasaret te déggal ay waajuram fekk yaayam moom takk mbir yooyu yépp ci xolam yeesoo ngi doon màgg ci jëmm te yokk ci xam te neex yàlla ak nit ñi kon gis ngeen bi ko yaayam ak yuusufa wëree ba gis ko fekk sax amaana yéesu bëggul woon ñibbi waaye mu déggal waajuram ñu daldi ànd dellu seen dëkk nasaret yéesu mi jóge asamaan royukaay bu baax la ci bépp fànn ci dund nit te yemul foofu ndax wax na ne doom yi gannaaw ba ñu joxee wegel gu mat sëkk seeni waajur nañu leen teral di leen taxawu seen kem kàttan ci seeni soxla ndax wareef la waaye mbokki déglukat yi ndegam ci sunu cosaan xale dafa war a wormaal mag it li nuy seetlu ci goney tey yii moo di ñu bare ci ñoom topp ñu cosaan loolu ndaxte am na ci ñoñ bu seeni waajur mbaa meneen mag waxee lu leen neexul ñu gëdd leen ciibatu leen ne wëriñ dëdd weguñu seeni waajur te duñu am it benn toppatoo ci ñoom xanaa dëkk ci tàngal seeni xol rekk waaye du dundin woowu lanuy jàng ci juróomeelu ndigal li li yàlla bëgg mooy doom yi sopp seeni waajur te déggal leen ci lépp luy coobare yàlla wante loolu dafay dellusi rekk ci sas wi waajur yi am ci yar bi wareef la ci bépp waajur mu bañ a boyal ay guneem waaye mu leen di toppatoo di leen yee te di leen jubbanteekub yar su ko laaje ndaxte weqi nag tekkiwul mbañeel ci doomam wante ci biir yar bi nag waajur wi war na ànd ak sagoom te it bañ a bund xataal xale yi kàddug yàlla dafa nuy won ne warunu saaga mbaa di jaxase sunuy doom ndaxte loolu boo ko yàggee di def gune benn bés dina jéngu fippu ba mu jural ko safaan bu boobaa nag yow waajur wi am nga ci wàll ngir moytu loolu lépp kon waajur wi war na jubbanti ci mbëggeel ak cofeel te di tette xale yi ci ngëm gu wér ci yàlla ji dund moo tax kàddug yàlla wax ne yéen waajur yi bu leen bund xale yi waaye ngeen yar leen di leen yemale ak a yee ci borom bi loolu moo di sasu bépp waajur mu jëm ci teg xale yi ci yoonu njub wante ndax mënees na joxe lees amul kenn du tegtale béréb boo xamul yow ci sa bopp soo jubul fa kanam yàlla naka ngay mën a tege keneen ci yoonu njub soo xamul fu béréb sàngam féete doo mën a teg kenn ci yoon wa fa jëm li nu bëggoon nag mooy ku nekk dégge wax ji ni ko mbind mi waxe bi mu naan ku jub amul du kenn sax amul kenn ku xam yëfi yàlla ñépp jeng nañu ba kenn amalatul yàlla njëriñ te xamuñu yoonu jàmm waaye xarit yi ndax loolu day tekk ne buntu yaakaar tëj na déedéet yaakaar kay am na ndaxte kàddu yàlla nee na itam léegi nag yàlla feeñal na nit mën a jube ci kanamam ci lu sequl dara ak yoonu muusa waaye ba tey yoonu muusa ak waxi yonent yi seedal nañu ko jub ci kanamu yàlla gëm yéesu kirist rekk a koy maye te képp ku ko gëm bokk nga ci ndaxte ñépp a yem fa kanam yàlla ñépp bàkkaar ba joteetuñu ndamu yàlla waaye gannaaw kirist yeesu dee na ngir jot leen yàlla ci yiwam mën na leen a àtte ni ñu jub ci dara kon yow waajur wi ñuy déglu xëy na ku fonk sa diine nga waaye fexe ba sa doom nekk ku dégg ndigal te wekk ay waajuram tëna la bul xàddi pexe am na waaye faaw yow ci sa bopp nga jëkk a nekk ku jub fa kanam yàlla ni ñu ko jàng léegi yéesu almasi bi rekk moo la mën a def ku jub fa kanam yàlla looloo tax mu ne man maay garab gi ki sax ci man te ma sax ci moom dina meññ bu ngeen saxul ci man nag du ngeen mën dara kon yow waajur wi ci sa bopp jëkkala kërlu ci musalkat bi di borom bi yéesu lu ko moy dara du sotti ci sa mën-mënu bopp mu ngi tàmbalee ci nga am ngëm gu wér ci almasi bi yàlla fal di yéesu moom rekk a mësula jalgati yoonu yàlla moom kenn mënoona wax ne li neex yàlla baay bi rekk laay def kon sama xarit muy yow muy keneen képp ku gëm li yàlla ci boppam seede ci lu jëm ci deewu yéesu ca bant ba ak ndekkiteem ca néew ya te nangu yéesu ni musalkatam dina am dund gu jeex noonu yow it su loolu amee ci sa dund li wér mooy yàlla baal na la say bàkkaar rax ci dolli dafay jaare ci xel mu seel mi di la may bés bu set kàttanu def ci say doom yar bi leen di taxa nekk ñu fonk seeni waajur ak bépp mag kon xarit yi fii lanu leen di tàggoo tey ci njàng mi ñëw ndegam neex na yàlla dinanu gëstoondoog yéen ci juróom benneelu ndigal li su ngeen bëggee ay leeral ci li nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen fàttaliku li mbind mi wax ne naka yéen xale yi na ngeen déggal seeni waajur yéen waajur yi it bu leen bund xale yi waaye ngeen yar leen di leen yemale ak a yee ci borom bi